commerçant mi lëmbe dëkk bi ñu doon laaj est-ce que yëg nga ko. waaw kay loolu kay amul sénégalais bu ko yëgul kay képp kuy déglu information kay jënga loolu moom bu baax. yow la moo ci sa xalaat am nga yaakaar ne di ko jot. non amuñu yaakaar ne dinañ jot 400000 yi parce que Alioune Sall moom rakk président bi la te président bi da koy jàppale moo tax duñ ci mën a jot loolu kay xanaa beneen yoon waaye jamono ji ñu toll nii moom duñ ci jot xana beneen président bu ñëwee xëy na ñun ñu jot suñ 400000 yooyu noonu. kon daal yow sa yaakaar mooy doo jot mais tey ji bu ñu xëyoon woo la jox la ko yan projet nga ci réer. bëri na projet yi bëri na parce que jeunes sénégalais yëpp tey képp ku fi amoon 400000 am nga ay projet yu bëri yooyu war a réaliser ñu ngi si maçonnerie bi sonn. tey bu ñu amoon 400000 mën nañ nekk si leneen ah yoo xamante ne ñoo koy moomal suñu bopp suñu liggéey bopp lay doon c'est ça. waaw dañ doon laaj si affaire 400000 yi lëmbee dëkk bi est-ce que yëg nga naa ko waaw naa ko. est que am nga ci xalaat ne di nga ko jot. ndax am naa si xalaat ndax dinaa ko jot ah bon boo nekkee citoyen sénégalais war nga xalaat ni 400000 yooyu mun na mun nañ koo jot parce que bon dëkk bi boo xoolee lépp politique la lépp loo gis rek politique la waa buñu ko topé ndanga ndanga xëy ñu jot ko quoi wa man lool la ko gisee parce que fani may maa dégg télé gaay di réclamer 400 000 400 000 pour affaire pétrolisme may ngi dégg gars di ko réclamer wa c'est vrai bon bo xolé il faut ñu réclamer ko parce que bo xolé 400 millions et eh, 400 milliards loolu boko ko participer boo ko sénégalais citoyen sénégalais bu né warna am 50000 wala 40000 francs voilà té bu loolu noonu jarna na sax xuloo jar na xeex ko quoi tey jii bu ñu la ko joxoon yéen projet nga ci réaliser. non projet yu bëri loolu bëri na sama bopp projet yi moo war a ko réaliser dafa bëri sama bopp waaw loolu moom bëri na sincèrement parler waaw. mën nañ cee waaw man yooyu noonu suma ko jotee par exemple lu may liggéeyee fii nii xam nga fii projet la maa ngi liggéey di daan sama doole am 500 am mille francs loolu su ma ko amee est-ce que mënu ma si jënd ay matériel ku si mel ni aspirateur. ku si mel ni lavage général mun nañ ko exploiter fii booy liggéey am xaalis loolu yëpp mun nañ ko fi def loolu projet la. waaw dañ doon laaj ci affaire yu 400000 yi lëmbe dëkk bi est-ce que yëg nga ko. waaw loolu am na lu ñu ci jot a moom. xam nga ni. waaw de dañ ne ci wàllum pétrole beeg yooyu la maanaam wàllum état ak yooyu daal waaye daal euh, li ñuy wax rek maam di ko dénk suñu bopp te di ko dénk ñëpp mooy ñu sax ci jub rek te xam ni euh, alalu réew mi alalu ñëpp la. ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi juddoogul ak ñëpp daal ci lañ bokk daal maam lépp ñu teg ko ci yoon rek te teg ko ci yoon rek nga xam ni moom réew mi moom alaa kulli xaal jàmm ci ndax moom borom Tuubaa ñaan na ko ba pare moom jàmm rek moo fi njëkk te jàmm moo fi mujj waaye lii gën daal mooy ñu di ko teg ci yoon xam li nga xam ne moom la réew mi laaj ñu lal ko ci jub te maanaam fexe ba li li ñuy wax politiciens yeeg yooyu ñuy def te yàlla rek tax waaye euh, ñu ci bari léegi da ngay gis moom boo yoree yak sak njabot ak sa famille yéen koy bokku jël alalu réew mi pasar pasaree ko bu bu bu bu naxé nit ñi ba ñeneen ñew bu bu ñeneen ñëwaateet ñu ni ñu ni lañ wolu te bu ñëwaateet defat c'est la même chose dal manam liñ wax ak djub dal moo moo moo ko moo moo ko lalatul ndax ku ci nekk légui mam sa bop nga fi nekkal maam xol loo xamni sa ndariñu sa personnel bop la maam sa famille maam lool dal lool dal waye ñeneen ñi mom teggu ñu leen ñuy dara mom dañ nan buñ la waxé ni la bo leen falé ñu jappalé la ci ak yow ko ci falit mu nek ci intérêt bobom rek waaw djub dal mom lañ defutul mom eh, mais est-ce que am nga yakkar ni nga jot ci 400 millions. ah man di wax deug yalla mom 400 millions mom man mom defuma ci sama xel mom man wax deug yalla man defuma ci sama xel man de personnellement mom euh, defuma ci sama xel dal man mom man mom maa sante sant touba bax mom man mom maa sante sant touba bax bax waaw. wa tayji bo xeyo ñu wo la jox la ko la mo la nga la lan ci sa xalaat la mo ci sa xalaat ci 400 waaw tey jii moom mënuñu ku ci nekk ñu yëkkati jox la sa 400000 waaye nañ ko def ci réew mi rek maam doomi dëkk bi ne ci réew mi di ci gis seen bopp waaye ku nekk mënuñoo yëkk 400000 naan la sa a ngi ni waaye li nga xam ne bi maanaam liggéey jëmale xool loo xam ne moom mooy jëmale Sénégal kanam ñu jëmale ko kanam waaye ku ci nekk mënuñu yëkkati naan la 400000 a ngi ni ndax sénégalais koo ci yëkkati jox ko 400000 sama genre gi dañ balaa subaa ñu lekkaat ko waaye nañ ko dugal ci biir keesu réew mi maanaam doomi dëkk bi ñëpp daal maanaam gis ci seen bopp daal